mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di fas yéene ñëw ak yéen ci sunu ñaareelu bind eh, jëm ci bind bind yi nga xam ne dañ koy amal fii ci seen chaîne bii di GMT TV eh, muy njàngum majaalis moo xam ne dañuy jël lenn ci téere sëñ bi di ko nafara Euh, ni ko waxee woon ci bind bi jàll nag tey mooy sunu bindum ñaareel ñu fas yéene tab bi ci téere bi nga xam ne moom lañu fas yéene ànd ak yéen euh, nekk téere boo xam ne sëriñ bi moo ko bind ci tawxiid euh, tuddee ko faydul ganiyil mughni kon incha allah tey jii lañ koy tàmbali ndax bind bi jàll daa nekkoon rek ab tàmbali ak ubbee leeral lenn ci li aju ci xam-xamu pas-pas ak ay ngëneelam ak niñ ko war a jàppe kon tey lañuy dugg ci dugg ci téere boobu incha allah ñaan suñu borom defal nu tawfiq ban mën koo àggale ak jàmm te lépp nekk njariñ lu ñu mën a jariñoo ci barkeb sëriñ bi kon ni ko waxee woon rek ci indi bi jàll fay na loxo yéen moo ne day téere boo xam ne sëriñ bi moo ko way di ci jàngale tawxiid way ci muqaddima bi nga xam ne moo ne ci risaala bi ibn abi zayd al xayrawaani yi taalif muy téere bu ñëpp xam waaye da ko tàmbalee benn muqaddima boo xam ne daf ci leeral jëm ci pas sëñ bi jël ko na woy ko tuddee ko faydul ganiyil mughni kon euh, téere muy téere bu am solo boo xam ne euh, mbooleem ñu koy yër xam nañ solo si nga xam ne moo ci nekk ba tax mbokk yi ne ci Eh, chaîne bi sakku woon ñu jël ko di ko nafar moom nag day téere boo xam ne sëñ la ko way ci baxaru rajas comme ni ñu ko baaxoo xam rek eh, li ëpp ci ay wayam ci xam-xam ko wayee ci daaju rajas ndax day daaj boo xam ne eh, moo gën a dëppook xam-xam maa wayeenu xam-xam moo tax li ëpp ci ay wayam ci xam-xam ci Eh, ci rajos la ko way ci rajas la ko way mu toll ci ñaar fukki wala ñaar téeméeri bayit ak ak fukk ñaar téeméeri bayit ak fukk moom la téere bi toll eh, sëñ baa waaye nag ci état bi mujj ci ak dundam donte xamuñu exactement ban bërëm la ko waaye waaye daal bu ñu xoolee ni moom ah, ah, maanaam xay xeetu mbindam ni muy bindee ñu day feeñ ci euh, way wi ne ci mujjug euh, ci mujjug nekkam ci àdduna ci la ko bind ndax beneen lu ci waxtaane xew li nga xam ne son borom may na ko may na ko ko ngir sant ko moom yàlla subhaanahu wa taala kon euh, manes naa wax kon sëñ baa ngi dundam mu bokk ci taalif yi mujj taalif ci xam-xam kon muy téere boo am solo mi li ma ko waxee woon léegi rek mu woy ci muqaddima bi ne ci risaala donte sax waxut ci tàmbali bi ne moom la ci woy waaye boo comparé ñaari téere yi da xam ne moom la ci woy ndax moom ni ko baaxoo euh, xam ci ay woyam ñaari ñaari lay tudd téere bi nga xam ne moom la woy waaye bu dee ci bii moom loolu ñëw ci waaye ku seetantal ñaari téere yi danga xam ne euh, téere boobu la ci way moom téere bi nag mi ngi eh, seddalikoo ci ay ay bunt maanaam li ñuy wax muqaddima am na muqaddima bu njëkk boo xam ne def ci leeral di ci tudd yàlla ak sant ko ak di ko tagg ak di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak di dimbandikoo yàlla mu may ko mu maanaam mottal mottali way wi ak yu mel noonu gannaaw bu loolu jàllee mu defaat mu defaat beneen muqaddima boo xam ne daf cay leeral ñetti xaaji diine yi nga xam ne moo moom la diine moo làmbu diine maanaam ñetti xaaji diine mooy al imaan wal islaam wal ihsaan kon xaaj maanaam muqaddimam ñaareel bi loolu la ci loolu la ci leeral bu ñaari muqaddima yu jàllee moo indi benn bunt boo xam ne def cee leeral li aju ci gëm yàlla ak ay meloom ak ay turam naka noonu it li ñu wax ab dogal alxada wal moom it ñëw na ci bunt boobu naka noonu li ñu wax gëm yonente yi alayhim salaatu wasalaam ah, mu mu tudd ci yonente bi sallallahu alayhi wa ginnaaw moom mooy mujjug yonente yi te ab risaalam moo ambu mbooleem Euh, li fi jiitu woon lépp ci ay yonent naka noonu it wax na ci biir ni ñu war a gëme téere yi waaye ma tudd ci alxuraanul karim ndax mooy téere bi nga xam ne moo làmboo mboolem li nekkoon ci téere yu ko jiitu woon yépp naka noonu it wax na ci lu jëm ci gëm bis ak la ca aju lépp naka noonu it gëm li ñu wax Euh, ñetti ñetti siècle yi nga xam ne moo moo jiitu ci moo jiitu ci lislaam ni ñu ko war a gëm nga xam ne ab jullit daa war a jàpp ne ñetti siècle yi jiitu mooy siècle bi yonent bi nekkoon ak ba ci topp ak ba ca toppaat ñoo gën ci mbooleem euh, siècle yi mooy xarnu yi naka noonu it wax na ci biir bunt boobu ni ñu war a toppee ni ñu wooye salafu saalix salafu saalix mooy dale ko ci ak mbooleem ñi fi jaar gannaaw bi ñëpp ci ay nit ñu baax ñu war leen a topp war a topp seeni jeexit naka noonu yi ñu war a toppee ñu ñu wooye ulul amr nga xam ne ñoo ñoo jiite jullit ñi di ci yoon ñu war leen a topp ca la yàlla santaane ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa ko suñu borom wax ci alquran karim naka noonu it ni ñu war a bàyyee werante ak ak biijoo dagg sante ci diine ndax loolu Euh, bu yàggee gi day indi diine woyof ci xol moo tax ñu koy tere kon gis nga ni tomb yi yëpp sëñ bi wax na ko ci biir téere bi incha allahu taala bu ci nekk nañ ci jéem a taxaw suñ kemtalaay kattan euh, kon loolu mooy tomb yi yi nga xam ne moo aju ci euh, téere bi naka noonu am lu ñuy wax ay masaayil aqadiya ay question yoo xam ne day aju ci pas-pas nga xam ne bari na ay coow lool ci diggante Euh, kuréel yi yi gëstu ci pas-pas am na ci euh, question yooyu yoo xam ne sëriñ bi indi na ko ci téere bi wax ca la nga xam ne mooy position mooy position waa ahlu sunna wal jamaa bokk na ci li ñu wooye masalatu al asma wa sifaat euh, mu jëm ci maanaam sunu borom ak ay turam wuute yi nga xam ne am na ci naka noonu yi li wax xalqul quraan ndax al quraan mbindeef la wala déet loolu masala mu bari coow la ci diggante firaq islamiya yi muy kuréel yi gëstu ci pas-pas naka noonu li ñuy wax xalqul afaal ndax doomu aadama li muy jëf moo ko bind walla maanaam moo koy kereel boppam wala su borom moo ko bind ci moom loolu it masala mu bari coow la naka noonu it eh, masalatu ru'yatillaahi taala ndax yàlla dees na ko gis loolu it am na ay wuute yu ci naka noonu li ñuy wax murtakibul kabira maanaam nit ki nit ki bu defee bàkkaar ndax bàkkaar ba euh, da koy yóbbu sawara directement wala déet wala ndax bàkk def bàkkaar day génne day génne nit ki ci diine wala déet loolu am na yoo xam yu ndax def bàkkaar day génne nit ci diine wala déet naka noonu it euh, ñuy wax takfiir mooy nit ki su euh, su su jàddee yoon def lu dul noonu ndax. doomu aadama sañ na koo génn ci diine wala deet ak yu mel noonu yooyu daal ay question yoo loo xam yoo xam ne sëñ bi indi na ko ci biir téere bi naka noonu it eh, li ñuy wax ndax gëm yàlla mën naa wàññiku wala ah, ndax dana yokk ak ndax gëm yàlla day yokk ak di wàññiku loolu it wuute am na ci ci diggante borom xam-xam yi naka noonu it eh, ngëneelu saxaaba yi alayhim ridwanullahi taala ak seenu maandu loolu dafa am ci kuréel yi ñu ñu ñu wax ci ñoom ñu doy waar waaye bu dee ahlu sunna wal jamaa moom dañuy jàpp ne saxaaba yépp am nañ am nañ wàccuwaay bu rëy ci suñu borom ba tax nañu war leen a warmaal war leen a fonk war leen teg fu kawe kawe kon yooyu yëpp ay question yi loo xam ne ay masaay la yoo xam ne sëñ bi indi na ko ci biir téere bi su ko defee nag fii la tàmbalee moom téere bi bismillaahi bismil ilaahi alqaabili rahmaani ashaakiri rahimi dil azmaani mooy ni ko baaxoo rek eh, lépp lu ab jullit di tàmbali daf koy tàmbalee bismillah moo tax mu tàmbalee ko bismil ilaahi mooy tur su tudd eh, moom mi nga xam ne yonent bi wax na ne lépp lu am jullit di tàmbali te mooy lu am solo bu ko tàmbaliwul bismillah day ñàkk solo eh, bokk na ci ay meloom nag mooy arrahman ak arrahim ñaari melo la yoo xam ne xam nañ leen bu baax a baax yàgg nañ ko gis ñëw na ci alxuraan ay bërëb yu wute wute arrahman mooy mooy ki nga xam ne mooy xéewal ci àdduna mbooleem jaam ñi te xàmmee wut ñi ko gëm ak ñu ko wedde arrahim nag mooy ki nga xam ne ay xéewalam ca ëllëg yawmal xiyaam la jëm nga xam ne ñi ko toppoon fii ci àdduna rek la koy jagleel moo tax euh, mu wax ne bismil ilaahi alqaabil rahmaani ba tey aw aw melal la boo xam ne da ko melal suñu borom mooy kii nangu mën na am da ko delloo ci moom yàlla moo xam ne moo ko nangu léppam wala it mën naa dellu ci meneen maanaa xam ne alqaabil mën nañ fee dagg li mu àndal ndax ne ñëw na ci alquran suñu borom wax ne euh, gaafiri dambi wa qaabili tawb xam ne foofu da ko laafal tawb suñu borom mooy jéggale bàkkaar mooy nanga tuub hmm. ashakir rahim ashakir rahimi lil asmaani ashakir mooy ki nga ne mooy sant mooy sante dil hmm. asmaani kii borom jamono yi kon gis nga ne foofu indi na fi lenn ci ay ay sunu borom ak ay turam subhanahu wa taala waxaat ne man bishukuuri subhaanahu min rafiin shakuuri moom yàlla mooy ki nga xam ne moo digal képp kum xewale képp kum jox xew xewal mu sant ko man amral munaama yi maanaam képp koo xam ne suñu borom jox na ko xewal suñu borom moo ko digal mu sant ko ci xewal googu moo tax ma waxoon ne waskuru ni'matallahi in kuntum iyaahu ta'budun waxaan na ko ci yeneen bërëb waxal ne washkuru lii wala takfuruun kon suñ boroom moo digle ak cant euh, cant nag li koy waxee mooy xewlu gi la yàlla jox nga nga wëlbati ko joxaat ko yàlla loolu mooy sant mën naa feeñ nag ci làmmiñ ak ci ay cër ak ci ab xol moo tax sëñ bi waxoon ci masaalikul jinaan ne xaqiqatu shukri la daaman alima shuhuduna min zil jalali niama wa amal biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wa ruknan yustabaan kon dëgg-dëgg sant yàlla euh, mooy nga yëg xeewal ak suñu yëg na yàlla moo la ko defal su ko defee nga wax ko ci sa làmmiñ jëfe ko ci say cër fas ko ci sab xol hmm. maanaam xam dayuwaayu xeewal gi ci sab xol xam na yàlla moo la ko xeewale ci mbaaxam rek waaye nekk nekkul loo xam ne danga ko yaayoo kon loolu mooy ak cant moo tax su borom digal képp kum xeewal képp kum defal xeewal nga sant ko su ko defee nag euh, man a amral munaama bi shukuri al munaama foofu dañu fay daggee li mu war a àndal al munaama alayhim comme ni ñu ko jàngee ci alquran siratal ladina anamta alayhim mu waxaat ne subhanahu min min rafiin shakuri maa ngi tudd sellug sunu borom mi nga xam ne bokk na ci ay meloom ak ay turam mooy ar rafi ak as shakur ar rafi mooy ki nga xam ne mooy yëkkati képp koo xam ne soob na ko waaye di suufeel képp koo xam ne soob na ko ba tey mooy as shakur moom it bokk ci melo yi sunu borom bi ak ay ay turam bu dee as shakir moom mooy aji sant ji as shakur nag mooy. ki mën a sant lool am ne day nekk siixa mubaalaxa mu tekki ne wa salawaatuhu bil intihaayi bil intihaayi maa salaamihi ala albahaayi sayidina qaaidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wal hummadi ni ko baaxoo buñ tuddee yàlla bàkk ko kañ ko ci teg julli ci yoon tamit sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëñ bi teg ci ne mu ngi ñaan ay xéewal yu bari yu amul yemukaay yu ànd ak mucc xewal ca borom taar ba alal bahaay mooy borom taar ba kooku nag si sayidina xaayidina muhammad mooy sunu sang bi nga xam ne moo ñu womat ba liggéey incha allah yóbbu ñu àjjana ñun ñu ko topp gëm ko turam dëgg nag mooy muhammad muhammad mooy tur bi nga xam ne moom na ko maamam abdul muttalib tudde woon bañ ko laajee ne ko lu tax nga tudde ko muhammad te tur wi miinuñu ko woon mu ne damay damay yaakaar ci yàlla waa boo liggéey mu nekk ku ñu sant ci kaw ak ci suuf te suñ borom dëggal na yaaka yaakaaram jooju kon gis nga yaakaar lu baax ak ak gaan nga lu baax ni mu solo hmm. mu ne wa alihi wa ni muy jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ci boolee ay ñoñam ak ay saxaabaam ay ay nag mooy ay jege ñaaleem ci waa banu banu hashim bu dee ci euh, ci wàllu saraxe na ñoo xam ne saraxe dee dee su ko jox ab sharif mooy ku bokk ku bokk ci yonent bi ku bokk ci askanu yonent bi bu dee ci euh, côté boobu al al mooy ñooñu mooy ay jege ñaaleem yi bokk ci bani hashim waaye nag ci maanaam gën a yaatu rek mooy mbooleem ñi ñi ragal yàlla ci xeet wi yëpp dañuy dugg ci alu nabi sallallahu alayhi wa ay saxaabaam it bokk na ci ñi muy tudd ci di ñaanal xeewal ak mucc saxaab yi nag mooy koo xam ne dafa dajeek yonent bi jamono ba pare gëm ko faatu ca ngëm ga kooku la ñuy wooye asaxaab yi mooy ku dajeek moom ku dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamono gëm ko ba noppi faatu ca ngëm ga donte eh, li ñuy wax murtat jaar na ci diggante bi waaye ginnaaw faatu na ci lislaam rek kooku dañ koy wooye asxaab yi mhm. wala xumat nag mooy mboolem ñi sant te fii da cay jublu rek ñi nga xam ne ñoo topp yonente bi sallallahu alayhi wa saxaabaam ñi nga xam ne ñoo leen topp ci ak mbaax ak njub ba bis kon gis nga ne eh, nañ ko baaxoo rek mooy gannaaw buñ tuddee yàlla teg ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la sëriñ bi doxalee fii ci téere bi su ko defee nag maanaa julli ci yonent bi dañu lu am solo lool ci ab jullit ba tax na dañuy wax ne mënta ñàkk nit ki def ko benn yoon ci ak dundam maanaam farata lu mënta ñàkk la benn yoon ci dund waaye lu mu gën a bari rek ñu gën ko sopp ndax tuyaaba ju bëri yoo xam ne am na ci loolu boroom xam-xam-xam yi eh, wax nañ ko mhm. ba tax na sopp na nga di ko def booy taalif wala ngay ñaan walla bu déggee ak noddu wala bu nodd gi jeexee wala booy dugg jàkk wala booy taaye taaye ju mujj julli yépp ay béréb la yoo xam ne dañ fay sopp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tekki ne wa baadu fal awnu wala fal awna min allahi almuin man qad kafaani yaa idaahu wala ayn ala kitaabin naafiin yaquudu li jannatin yukfa bihi lwaquudu mu ne gannaaw ba mu tuddee yàlla kañ ko bakk ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi sàkku ndimbal ci yàlla mi nga xam ne mooy at moo ayin mi aji dimbalee te yàlla moom mooy ki nga xam ne moo ko fegal ay noonam fegal ko saytaane man xat yàlla moo ko fegal moo ma fegal samay noon fegal ko maanaam saytaane gis-gis naa bi mu waxee rek man xat kafaani yaa daahu sunu borom fegal na ma ay noonam rek mboolem noonu yëpp da ciy dugg waaye da cee génneewaat allaahin ma asheytan loolu am na sabab bu tax mu wax ko ci xam-xamu balaaxa ñuy jàng balaaxa xam nañ yooyu ala kitaabin naafiin yaquudu mu ne mu ngi sàkku ndimbal ci sunu boroom mu dimbali ko mu way ab téere boo xam ne téere bu am njëriñ lay doon ala kitaabin naafiin téere bu am njëriñ boo xam ne képp ko ko jàng mu man laa jëriñ fii ci àdduna ak ci àlaxira yaquudu li jannatin ba tey day nekk téere buy wommate jëme àjjana képp koo xam ne jàng na ko jëfe ko li ci nekk da koy wommat jëme ko ci àjjana ya gën a kawe li jannatin na bihil yukfa bihil waquudu bu fekkee da ngaa jàng yukfa bihi mu dellu ci téere bi muy téere téere boo xam ne koo ko jàng euh, da lay fegal sawara wala dees na la ci fegal sawara wala nga jàng yukfa bihal waquudu mu dellu ci àjjana nga xam ne ku dem àjjana rek mucc nga ci sawara fi di wal fiqhi wa fi tasawufi yubdi amaana xaadimin xilin wa fi kon ab téere la boo xam ne daf koy waye ci ñetti fànn yi muy al aqd pas-pas ak fiq muy xam-xam bi jàngale ni ñuy jaamoo yàlla ak bi jàngale ni ngay sellale say jëf ba su borom nangu ko yubdi amaana xaadimin xilin wa fi ba tey day nekk téere buy feeñal kóoluteeg aji liggéey jii di sëriñ bi nekk soppeb yàlla ko yonenteem nekk ku matale ku xam ne li mu engagé wu muy xidma boobu eh, daf ko matale te loolu wax na ko ci ay béréb hmm. ubaayi'ul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa kon fii ci baydu yi sëñ bi wax na fi ne téere bi da ko fas yéene way ci ñetti xeeti fànni xam-xam muy al aqd wal fiq wa waaye day mel ne bu xoolee ñun liñ jot a gis ci téere bi rek benn xaaj bu njëkk bi moo ci ñëw mooy xaaj bi aju ci wàllu pas-pas kon xëy na benn mën naa am da ko tàmbali woon euh, ba àgg ci euh, xaaj bu njëkk bi jeexal mu bàyyi ko àggaliwu ko wala wala daal waaye fii moom ni mu waxee day mel ne ñetti fànn yépp la amoon yéene way ci téere bi waaye ñun liñ ci jot a gis mooy xaaj bu njëkk bi aju ci wàllu pas-pas ah. yu nilu man yaqra'uhu kulla murad min gayri makrin saalikin xayra marad mu ne téere la boo xam ne képp koo xam ne jàng na ko rek téere bi daf koy jox lépp lu mu bëgg lépp lu mébét téere bi da koy womat jox ko ko min gayri makrin saalikin xayra marad maanaam da koy jox lépp lu mu bëgg ci lu àntug benn pexe wala luy ndur pexe te it da koy suub ca ngën ji aw yoon saalikan xayra marad téere bi da koy suub moom aji jàng ji jëme ko ci yoon yoon wa gën hmm. mu teg ce ne wallaha wallaha asalu bi jaahil muntaxa kawna nidaami zaihi baaba irtiqaa mu ne mi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa ci barke bi yonente bi sallallahu ci darajaam way wi nekk way woo xam ne day nekk bunt bu yéeg yéeg jëm ci yàlla maanaam ki nga xam ne jàng na ko jëfe ko nekk bunt boo xam ne daf ciy jaare ngir yéeg jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala na kawnahu an kulli suin junna dunya wa oxra xaadiman li sunna tey day ñaan sunu borom def téere bi mooy téere boo xam ne day nekk ab pakk muy luy aar nit ki ci lépp luy aw ñaawteef kaw nahu an kulli suin junna nekk pakk boo xam ne képp koo xam ne jàng na ko daf koy aar ci lépp lu ñaaw duniyaa wa axra xaadiman li sunna maanaam fii ci àdduna la koy aare naka noonu ci àllaaxira gi la ñu jëm waaye nekk téere boo xam ne day liggéeyal sunna ci di ko leeral ak di ko di ko saraa xaadiman li sunna bu fekkee dañ ko delloo ci téere bi bu fekkee dañ ko delloo ci sëñ bi it moom moom leer na mooy kon sëñ bi mooy nga xam ne mooy liggéeyal sunna comme nañ ko xamee ñun ñëpp wa an yakuna daafiu dunuuni bi xayri ba tey mi ngi ñaan suñu borom def téere bi muy téere boo xam ne day day dàq mboolem liy njort yu ñaaw daf koy dàq waaye ànd ak ngën ji secret boo xam ne Euh, secret buy not la boo xam ne du feeñ fii ci àdduna waaye ëllëg lay feeñ xaaxirin makk noonu bi xayri sirrin xaaxirin makk noonu wala boog boo jàngee bi xayri sirri xaaxirin makk noonu mu nekk ngeen ci secret bi sunu borom mi nga xam ne mooy al xaaxir kon ñaari maanaa yépp mën naa nekk mu teg ci ne wa kawnahu wa kawnahu iraatal unaasi min dararil fujaari wal xannaasi ah, na téere bi nekk téere boo xam ne day noppal nit ñi ci lore kàccoor yi ak asaytaan alfujaar wal xannaas xanaas mooy ashaytaan kon yal yàlla def téere muy téere boo xam ne képp koo xam ne jàng na ko daf koy noppal musal ko ci lore kàccoor yi ak lore iblis mi nga xam ne mooy ashaytaan alxannaas wa kawnahu darfa ulumin jamma naafiatin tabuqa li xayri umma tey mi ngi ñaan suñu def téere bi muy garfa ulum garfa ulumi jàmma muy ndabul xam-xam yu bare bare bare bare naafiatin li xayri um naafiatin tabuqa li xayri umma ba tey nekk e, ndabal xam-xam yu bari yu am njariñ yoo xam ne dafay des ba faw ñeel xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi nga xam ne ñooy ngën ji ngeen ji xeet yi comme ni ko suñu borom waxee ci alxuraanul karim kuntum xayra ummatin uxrijat lin naas wa kawnahu mixlaaxa kulli dayri wa kawnahu miftaaxa kulli dayri ba tey mi ngi ñaan suñu borom subhanahu te taala mu def téere bi muy caabi lépp luy lor maanaam muy tej lépp luy lor eh, di ubbi lépp luy aw yiw wa kawnahu mirdaaxa kulli dayri wa kawnahu miftaaxa kulli xayri mhm. mu teg di ñaan rek ñaan suñu borom def téere bi muy téere boo xam ne day noppal waxambaane yi nga ñoo koy jàng ak way bay jaaw walis ñuy dem di yër yeneen téere eh, di fa bux buxloo intasaamul biibaani maanaam manaafiri buñ ko jàngee rek yem ci ñoom waxambaane yi ak way bejaaw yi mën nañ cee yem rek daa yow ñuy dem di yër yeneen téere ngir eh, xëy na li ci nekk lépp moom mën naa doy ci quoi ku bëgg xam lu jëm ci pas-pas ak la ci aju wa saadatal muridi wa munjiyan min darril maridi ba tey mi ngi ñaan suñu borom def téere bi muy téere boo xam ne day nekk te xek ab murid bi koy jàng wa kawnahu saadatul muridi wa munjiyan min dararil maridi ba tey tey musale ci lori al marid mooy cheytaan laanahullah wa kawnahu li shifa min kulli ma yaduru xaytu ku shifa ba na téere bi nekk téere boo xam ne day nekk saafara ñeel mbooleeb nit ñi bépp jàngoro na ko def mooy téere boo xam ne day nekk saafara ñeel doomu aadama yépp ci bépp jàngoro boo xam ne mën naa mën naa dal nit wa an yakuna daa qabulin xasani muxrija man laasamahu min wasani ba tey mi ngi ñaan sunu borom def téere bi mu nekk téere bu ñu nangu nangu bu rafet wa an yakuna daa qabulin xasani yàlla na ko suñu borom nangu nangu rafet rafet ba tey muy génne képp koo xam ne taxu nag moom mu génn génne ko ci ay ay nelaw nelaw yu càggante muxruja man laazamahu min wasani wa an yakuna furxatal muwa mawaatini furxatal mawaatini fawzan li tey mi ngi ñaan suñu borom def bi mu nekk mbégteem dëkkuwaay ya maanaam fépp fu mu nekk rek foofu foofu am te mbégte mbégte nekk fa fawzan li kulli raaxilin wa xaatini nekk texek képp ku kuy tukki wala ku nekk ci dëkk bi nga xam ne tukki woo maanaam ki toog tukkiwut wut ak ay tukki yépp téere bi nekk seenu texe nekk seenu texe kon gis nga ne ñaan yi ni yaatoo lépp luy xeewal rek ak ak lu baax daf koy ñaan ci téere bi wa asalullah alkarima binnabi salla alayhi bi salaamin mutnabi an laa yazaala amda nidaamu raiqa mubaarakan wa naafian wa faiqa ba tey mu ne mi ngi ñaan yàlla mu tedd mi ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla dolli xeewlu mucc nekk way woo xam ne du mas a dañ di yëkkati ku jëm ci kaw nekk mubaarakan wa naafian wa faiqa nekk way wu barkeel wa am njariñ lool te kawe mboolem way way yi ñu way ci fànn gi di tawxid xata ntafa xata bihi intafaa kullu man yuhib allah wa rasula xillan aw muhib képp xam ne daal bëgg na yàlla bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa man cee jëriñu njëriñ loo xam ne du am yemukaay moo xam ab soppi la wala mooy ab xarit kon foofu la ñu taxaw ni incha allah ba beneen yoon ñu àggale fii ñu jëm bu soobee yàlla ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم